Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yépp di leen siyaare bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaan ci barki Sëñ Tuubaa suñu kàddu fekk leen ci jàpp di ñaan ci barki Sëñ Tuubaa bu déwee ni ñëpp teewee ko kenn bañ koo manqué di barki Sëñ Tuubaa kon bu ko defee tàmbale programme bi képp ko xam ya yaa ngi dégg suñu kaddo te nek ci ginaaw baas bi wala nga nek ci biir kër yi nga génn ñëw déglu waxtaan yi ndax moo ci ëpp solo ndax moy bés bi moy jëmmi bés bi jëmmi màggal mom cérémonie kon na ñëpp génn si déglu cérémonie bi bu jeexee ñu delluwaat ci bernde yi ak yeneen yi ba jàng fa yi tàmbale ak ak sikarkat kon bu ko defee dañuy tàmbali programme bi jox suñu suñu suñu di sëñ Alaaji Fay chef de village mu tàmbale yëkkati ay kàddoom kon bu ko ndax wax la la ci ëpp solo mooy ñu déglu xam la ñuy wax dem doon bisimilah signalay ëllëg nga xam ne bii ma toog ci kàddoom laa fi toog saa borom dogal na sëñ Mbàkke ne ma moo ma dalal fii sama kër gi ma nekk tey ne ma nag sa mbokk mu fi ñëw te mu soog la dox ko mu liggéey boobaak léegi ñi ma bëgg a xam ne yàlla sax may na ma dalal leen ci sama tey bakkan ak seen tey bakkan léejalu ma kenn léejalu ma kenn ñëwul fi man jàmbat ma dara ci sa biir kenn kon kam ma a fi nekk Serigne Abdou Faye mii nag doom la ci ci man ci li mu wax man saa bopp lott naa ci taxaw fii di wax ci biir mbooloo lott naa ci lool xeet naa ci saa lool ndax dañu ne loo jàngut doo doon sëriñ kon man alaaji mii nag maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp fii itam Serigne Moustapha Touré mii moo fi sunu sunu Serigne mu ngi nii toog Serigne Moustapha bu waay ko ñaan naa la nga ne Serigne Moustapha yal na fi yàgg te wér yal na fi yàgg te wér dëkk bi nag aw ma fi xaar ma yàlla kër gu ma fi dugg mel ni sama kër laa nekk li ma mën a am ci kër yii mënu ma ko am sama kër. kon Serigne Abdou Faye sa gone yii bañ fi nekkee tey kenn indi lu ma seen gone te itam su ma ko seen ci ñoom ma wax ma wax la ko wax wax ngeen ko man ragal ma de gone yi fi ne am nañ yar am nañ teggin te du ma leen di wax ne bàyyi leen ko delluwuñu Lamine mii moo nekk ak ñoom fii moo ko jógu mii ak euh, sëñ Ousmane Dieng mii bu ma yeboo ne ñoo jangan di jangan li ci kër gi kon sant nañu baax a baax a baax a baax a baax yal na ngeen ba jox mbir ma ji teggi tiis yi saafara jàngara yi te jox na lu lépp suñu jangan yi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf Baye Alaaji ñu ngi ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa suñu borom guddal di gën a ci cër yi lool barkeb sëñ Tuubaa kon bés bi dafa mel ni dafa am ñun ko dara jaale am ñun ko tudde ndax ñu ngi ko dara jaale Serigne Mor si Touba Gassa waaw kooku lañ ko dara jaare muy Serigne Mor Sy Touba Gassane ko tudde waa daayira du jëf jël Touba Gadiaari mu mel ni ñoom ñëpp teew nañ fi buñ paree xam naa ñu yor seen kàddu dinañ ci sànni seen kàddu kon bu ko defee dañuy wéyal programme bi jox oustaz Samba Sall jëwriñu Serigne Baye Dar mu yëkkati ay kàddoom di wéyal cérémonie bi fu mu nekk rek mën naa ñëw ñu jox ko mu programme bi oustaz. di gannaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci sang-sang yi di sayidina muhammad jiital ci nuyoo yàlla yeggal ko Xadim waaye noonu lañ koy ziyaareel bàyyi faalam bu tëdd ga jàmbaaram nga sayful islaam nga moom it ko ñaanal yal na yàlla yokk fanam ba lépp lu mu nar a liggéey yàlla mën loo ko ko ba mën lu kawe jot ci barke Seex Ahmadu Bamba radiyallahu anhu di ziyaare suñu sàng di suñu lépp di Seyxinaa Seex Ismaayila Juuf Nuurullah di ñaan yal na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak waaye noonu lañ koy ñaanale bàyyi faalam di sëriñ Seex ndigal seen rigaalullah waaye di ko ñaanal suñu sàng di suñu wasila di suñu lépp seyxina Seex Ababacar Mbay daan borom Tuba ay jeex na ñuy ñaan mu yàgg fi lool te wér daan noonu la siyaare kilifa gu tëdd gi nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo di jéggalu ci kaddu yi di yëgal ne lott nañu di yëkkati ay kaddu ci sa kanam waaye dañu wax ne ndigal jëfe ñu dal waxaat ne ndigal di ak picc la buñ la ko joxee boo ne ax ah rek mu ne la ca doon njëriñ yëpp dem na loolu moo sabab ñu yëkkati ak kaddu ci sa kanam waaye ñu ngi koy toroxlu te di ko jéglu bu baax a baax sëriñ bi di la ñaanal gudd fan ak wér ak wér sëg ci barke Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babil Mouridine noonu lañ koy ziyaare kilifa gi tedd bi nga xam ne moo nekk sa di ko tuubal di ko jéglul di ko ñaanal yàlla gën a wéral cër yi waaye di ko ziyaare nit suñu sëriñ bi suñu lépp sëriñ Mor Si Tuubaa Gassam ñu di ko ñaanal yàlla yàlla yàpp fan wi gën a wéral cër gi ci barke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di siyaare chef du village li nga xam ne yaakaar naa moo yëkkati kaddu ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal wér ak wérsi di siyaare mboolem waa Sibon ñëpp di góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar waaye di leen di jot li nuyoo ak ziar bu bàyyeekoo ci suñu sang di Seex Babacar Mbaye daan bu yi jeex na sëriñ Seex Babacar Bay daan nee na mu ngi lay jottali ab ziyaar nee na mu ngi am mbégte ak kontaante ci sa bés bii nee na ndaxte kat xam na ne yow yaa ngi ci waaru lislaam nee na te moom lii rek mooy li ko ñor nee na na xati-xati jamono waaye li mu bëggoon de mooy ñëw teew si ci bés bi ñun ñett ñu lot ci kat yi nga xam ne moom la ñu jox waaye sëriñ bi Cheikh Babacar Mbaye daan nee na mu ngi lay séeréel sa jawriñ kan kii nga fi tegal muy sëriñ Tall nee na de góor la nee na te de murid saadix ne te جاب لنا آية من خلنا مملايا سبحانه وتعالى وخي واحتسموا في حق الله جميعا ولا تفرقوا نينا مومي لا سير سيرين تالاني مومي دخل آية غوغي نينا داخت بوكو نيخون سيرين تالا بو نيوي في نينا داي توك نان مان كات في ولا في لا واي موم سيرين تالا دافول لولو دا داف لب موي بن نينا مومي لا دي سوبتم لا وورلم لا nee na te da koo bëgg ci xolam te yàlla rek tax nee na ndaxte moom saa bu ñëwee ci daara jee dafa yëkkati ay xasida yi Serigne Touba yi di fa wax wax kuy Serigne Touba nee na mu am ci kontaan ak mbégte di la wax naan daal moom daal na ko gën a ñaanal moom de mu ngi koy ñaanal saa su ne di sakku ci Serigne Talla ñaan ak mboole ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi looloo tax mu ne bés ba de mënuma caa teew waaye nu mu di xat-xat. xëy na dafa nekk ci wàllu liggéey liggéeyu juma mu nekk ci loolee ci liggéey googu la ñu nekk ba tax mu ne moom dafa xaw a xat waaye bu lu sañ bu sañoon Serigne Talla Serigne bi nee na bu sañoon dana ñëw bokk ak yow gës yi nee na waaye na xam ne innamal ahmaalu bi niyaat wa innamaa li kulli imri'in maa na xëy na ñëwul de waaye na nga xam ne yéenam ñëw na nee na loolu tax mu délégation ñii muy Serigne Fallou Diop ak ki nga xam ne moo di Serigne Sourou. ak ki nga xam ne moo di Serigne Ayou Diouf bi nga xam ne mooy jànkatu xasida ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ga di napp nappi ak xale yi ngeen ngeen ñoo ñaanal ci barke Cheikh Babacar Mbaye daan ziyaare nañu ñëpp tuubal nañu ñëpp waaye di la gën fëtli seen coloré ak yaak Serigne Ousmane nee na Serigne na ko te sant na nee ku ko jàpp jàpp nga ko ku ko bàyyi bàyyi nga ko. nena sëriñ Usman ang ngi noonu yéen a ngi Usman, sa Ousmane Cheikh Babacar Mbaye daan nee na sant na la gërëm na la yàgg bàyyi fal yi nga xam ne yéen a fi nekk yéen nag sëriñ Talla ngeen xam ne da ngeen a jàpp yow bii def ko muy benn te muy benn ngeen def ko benn nee na loolu na na na ak doomi aadama moom wax rek ne suñu borom àggale ci kilifa yu bi teew ndax Serigne Moustapha Touré di mag ci dëkk bi dafa teew ci bés jëmmal bes bi xeebut ñi ko taxawal xeebut fi ko taxawalé bëgg dëkk bi bëgg ndawi dëkk bi teew na ci bes bi sëriñ abdullah fay borom Touba Fall Joxooba di waajal bes bu mag le 2 janvier Touba Fall Joxooba teew na ci bes bi teewal bi booleem tudd Joxooba ñu mëna a ñëw it booleem tudd ñëw kon bes bi jaar lolu waye baye ala alaaji fay bi Darma teew na di chef de village bi bëgg village bi teew na waaye Oustaz Samba Sarr moom ak mbooloo mi àndal yëpp teew nañu bu ma ko tuddee rek yóbbaale na yëpp waaye Cheikh Soudou Diop moom it teew na Cheikh Ousmane Dieng moom it mu ngi ci biir gataay bi kon mën naa ne baas bi moom sëñ Touba ngi fi Cheikh Ibra ngi fi ñëpp teew nañ ndax njabootug sëñ Ismaïla ngi fi njabootug sëñ Cheikh Ndigal Seen ñëpp a ngi fi njabootug Cheikh Rofal ñëpp ndax sëñ Ismaïla Diouf nooru laa lañu wax nooru laa nag bari na ñoo xam ne jokk nañ ci moom te xamuñu ko nooru laa leeru gi yàlla mooy nooru laa kon ak njabootam teew nañ ñëpp teew kon loolu moom jëmmal na bis bi taxawal na bis bi kon bu ko defee dañuy wéyal programme bi jox Serigne Moustapha Touré mi nga xam ne mooy mooy kilifa jotaay bi di kilifa ñëpp li ko mooy sëñ Touba ak Cheikh al sëñ Touba ak Cheikh ñu wax Cheikh Rofal newoon na su ma wàccee liggéey nañ natt sama bàmmeel ba mu gën a xóot bàmmeelu sëñ bàmmeelu sëñ Bamba ngeen doog ma faa def xam ngeen lu ko waral bëgg a gën a féete suuf sëñ Bamba bëgg koo féete kaw ak taalibe rek a koy may kon su ma nee sëñ Moustapha Touré kilifa gétaay bi ñu ko xamee noonu bisimilah ñu jox ko mu commencé gétaay bi bu noppee ñu door a jox si. jërëjëf nuyu bi tamit. kilifa gi nga xam ne moo fi teew teewal fi si andi xalifa central Baye Fall teewal fi si mën taxaar yaa fi ngeen murid yëpp ñu ngi ko nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ñaar suñu borom gudd la fanam nangu ab liggéeyam te nuyu sëñ moo si mi nga xam ne gasaan gi ak lépp wër a moo fi nekk xalifa central du murid ñu ngi koy nuyu di nuyu ñu ko ñu ngi ko yebal bu baax sant jëwriñ yi ma jàkkal ñëpp dama ci jëlee si Ousmane doonte jur bi dama ko ci jiital ndax moom lañ fekk si fii Ousmane suñu jur maa ngi bu baax leen jubal nuyoo ci suñu mbay kenn jotale ko suñu nuyoo ak nuyoo sëriñ bi yëpp suñu mbay kat dëgg yàlla ustaas wax léegi doy naa xam ne kon moom fa mu nekk na nga fa nekk ci li sëñ bi bëgg muy jàng ak jàngale ak yar ñu ko nuyu bu baax ak am jàmm mooy ay jeex bi am jàmm woote jàmm te tudd dëkk ba ay jeex ñu ngi ko nuyu ñu ko ñaan suñu borom bébét mu mu wét ko ay wi jeex am na suñu borom dimbali man man ma sot liggéey bu jafe la loo xamante ne bii mission yi ñu leen di yëpp loolu rek la islam mooy jàmm islam mooy jàmm diine jàmm kon nag moom bu tuddee dëkkam ay jeex na yàlla bu suñu boon dimbali ba nangul ko sëriñ bi ñu alaaj ñu ngi nuyu bu baax mi nga xam ne moom nga fa nekkal di wéy ndigalam fii yaa ngi jëfe lim la sant yaa ngi bàyyi lim la tey sin taala maa ngi lay nuyu nuyu say gan gan ñi moom say gan lañ waaw bis bi su ñëpp doo ko taxawal waaye yaa ko dundal te ñi fi nekk suñ leen law la wutoon duñ fi ñëw kon mbooloo mi duñ fi daje te li ñibbi moo li fi li bëgg li fi seenu ak seenu jëfe seenu yar mooy la ko may nit ñi moom mënul am maqaama mukk ñu topp sa ginnaaw ci ñàkk dégg na ñàkk kers ak lu la neex déedéet ba ñu ko ne ko jiyén sarata am waaye doo am ñu baax ñu moom ñeneen boo amee bu def lay nag dangay am la neen waaye doo am ñu baax ñu moom kon nag yéen fi nekk sëriñ bi ñu leen sant bu baax taxawaay bu ngeen taxaw ba mën a dajale nit ñi man leen fi yendal ba ngoon jot am ñu bëgg ñoo tamit ñaan suñu borom mat na seen liggéey yëpp yëpp yëpp si suñu Abdu nag amoo jot ndax ki nga àndal ba ànd ak moom doo am jot saa ne mi ngi ci ndigal mooy suñu am di ndigal dafa tax mu nekkaat ca loola bàyyi fee nekk nit jugaat ca loola dem ca la ca des ndax bi muy bi ñu ko doon lëkkaloo bi am na liggéey bu mu bàyyi dañ na ko bàyyi boobu ñëw si biir bu ñëw si bu noppee def dinaa ca boobu la jëmaat am jot xam amoo jot ñu jéggalu baax ndax lii nga ko ko defal ñëw gi ñëw fii nekk fi di jàmm yàlla dundal li Seex Ibra bàyyi ndax Seex Ibra de ku ñuy réere koo xamante ne bii boo ñëwoon fii gone yi di nekk na leen mel ni bi guddi dañ naan afaay ah, ah, yi noonu lañ mel waaye ndox dañ ko indee ñoo xam ne ci jub lañ ne teg yoonu siraatul a buñ daje woon ci ñoom ci ñuy kay kay ak kon tamit kat duñ ko man duñu duñ leen mën a waxal dara ndox bi nekk ci yoonu siraatul mustaqiim seen royuwaay muy Seex Ibra koy wax léegi fi mu jaar ba am li mu am jaar kam fa jaaral koo fa jaaral ñu wax kooka da nga am lan yendoo liggéey fanaane root kaay di nelaw gënal xuréet mu fanaane root lépp liggéeyal ko ko ci yàlla ko defit am lim am sagal dumaa nag baatin ba mu am ba bàyyi la mu amoon ak ñam xamoon ak ci bokkam di wëri koo xam ne mosu koo gis loolu moom baatin la bu mu ko ba gis ko feesoon na dell su fekk si fees dell fay naa bàyyi yëpp laxasul liggéey moom daal tëlutoon a sangu tëlutoon a jàpp dafa waral tëlu ko woon sa bopp jàpp moo tax mu nit ñaan mu naa ko mu niru am am njañ moo tax nga Moustapha di ko naa ko njañ njañ boobu dégg si nga Moustapha xam nga ñëw jéggul sa doom dañuy roy ñëwoo kooku xam nga ne yow am na ngërëm si nga Moustapha seex la doon roy buñ tudd ko njañ Cheikh Ibrahim daa tëlul woon a defar te ko tëlu doon sakay it daa tëlul doon suñu ko di su wóor di ko sànq parce que yëpp diiru lim ànd sëñ bi da ko liggéeyal sëñ bi dañ naan juróomi ñaari at la ànd ak sëriñ juróomi ñaari at la ànd ak sëriñ ñi ne mënul ko sax waaye mu fàggu bi lu xamante ni kenn ku nekkar bu suñ fallu taxawee la sooroon bi faroon bi kenn ku ne ko ma koy tudde mu ko seetal Baabul Muridiina murid saadiq la ñuy wax murid saadiq nag da nga doon murid nga jiite Baay Faal doo doon murid saadiq Baay Faal moom daa egg amut amut luñu amut amut amut amut nax amut luñu doon Baay bu sotti yow jiite Baay doo war a mën a nekk murid saadiq da am bari Baay Faal kon Seex Ibra fi nekk woon muy seet boo xam ne egg na ci yàlla tës ricc ci yàlla di yàlla yi kese mu ñëw moom it bàyyi léppam ak ñëppam ak féppam dee xam bu doon teraanga rek amoon na doomi garmel garmel doomi garmel li mu bëgg mooy yàlla rek ba léegi nag yàlla ngi ku sàkk nu mu ko doon sàkkoo am suñu fàllu waxoon na ñii sàkk lu kay ñooy jeex waaye kii bii ndab yi moom du jeex kenn ku dong la yéen ñëpp cër bii ngeen jox ñu toog ca ngeen toog suuf sëñ Tuubaa moo tax sëñ Tuubaa nag ñu li ngeen def ñu defal ñoo kat mënuñu leen fay amuñu seen fay sëñ bi leen ci yaakaar bu ñu ko gàtt moom attan na yéen nag bu nanguwul yéen ko yéen ñi ko yedd yéen la ñun duñ ci dara ñu fa newoon ku am gërëmal law bi ku ñàkk gërëmal law bi lépp moom ndax moom Serigne Touba di ko seexu da fekk ak ñun fa fekk ñëpp ñu di nit yàlla te ay kàng fóore mu ñu nekk ñeenti tooy nit seex ba dañuy jébbalu mooy ñeent ba ñeenti tooy nit bi ba mu jébbaloo liggéey fa liggéey boo xamante ne bii kenn mësul liggéey liggéey bu ñu toll soxee doon baax mbir yi de ba léegi bu fi baax Serigne Touba a ñoo ne nga ko bayfaal bu ñu ko joxee rek daal sotti nañ ko bëgg kon nag Baay Faal daa doon aw melo boo xamante ne bii ak yoo xamante ne bii ak doxin boo dox ki da koy niru ko waxee ko waaye moom laay taxul ñu xam ne moom sa kan ndege guddi raste taxul ñu xam ne Baay Faal da nga doon melo melo Baay Faal nag mooy ki nga xamante ne bii. daa jox sëriñ bi léppam jox sëriñ bi léppam di ko déglu ci féppam jëmbal bi léppam boo laaj seen digal bu la ko joxee doo ca la wax ku jox sax lu ñu la digal day jub ndax suñu borom moo fay taxaw loolu tax jëf jël looy jëf rek yaa ko looy ci digal ko teg jëf jël loolu moo gën léegi nga def te defoo ko doo ko moom daa taxaw si dafay looy def te doo am ñu ne jëf jël jëf ji daa tegu ci ndigal bu jëf daa digal ñu la digal ne boo ko defee rek noonu sàtt la ci suñu borom nag daal noppi li mu wax wax na ko ba noppi jëf rek moo ci des dara bëgg dara taxum dund ñu ak sàq ngeen ñu la la bëgg ñu def doon ay bokk juboo déggoo mission boobu moo la fi Serigne Touba dox Cheikh Ibra it moom la fi dox Cheikh moom mag ñu fi Serigne Touba bàyyi fuuf di seen bàyyi daa yow jébbalu ci moom jébbalu ci moom Moustapha jël doomu Moustapha jox ko ak yenn jëm daa bay addee jox mun muy woote raay bi mu jël ay taalibeem jox tas ay daaraam jox te moo ko ma fuuf bàyyi Cheikh Ibra la naan ñu daal bàyyi Cheikh seen bàyyi la woon bu doon ñun nii ñuy doxee duñu kat boo liggéeyee léegi ba ba doom ja des ma nga ne nga ne nga ne nga ne bàyyi sa bàyyi laa liggéey sa bàyyi laa gën jafe doon wutoon noonu te si ak yeneen doom jébbal lu mbay yóbbu balaa def dara laaj ko ndigal si munu saa saa dañu wax moo ñu ko defee ñoom ci jumaa ji 1952 la fi te bu mu jógee fekk na mu saxal bi ak yéen million bu mu di day jaay kër gi nekk jox suñu salaam noonu la loolu mooy deful baaxal ba du ngeen baaxal du am dara déedéet dana am dara waaye lu mu am suñ baa ko fa bàyyi te boo mu dara loolu wut dara doo joxe dara da ngay sàkku ba am téegu soxla si million nga def ko loolu mooy baax baax baax loolu la am murid nag akul islam génnut fas yéene ëllëg booy wuti sa borom saxal ko sa xol bi sell suñu borom moom soowul lenn dul xol bu sell bilaam ak laa daxal bi salimi la xol bu sell nag du yóbbaale bañ kenn du yóbbaale xol bu sell mooy loolu du yóbbaale mbañal kenn du yóbbaale xulóo kenn du yóbbaale àq kenn jëlee naan bakkaat ba bon bakkaat ba bon sax moo gën moo gën moo gën moo gën moo gën ñu baalee ak yi suñu borom moom nga xam ñaan ma ñaan ma ñaan boo koy ñaanoo ko mu mere la bokku technique nit boo ko ñaan ñett yàlla moo gën ni nit daa melul ne ni moom yàlla na mel mel na ni moom ku ñaan mu mel la sax na benn yoon la ko wax bàyyi kon nañ góorgóorlu buñ koy mu nga wuy ji du baalu xol bu sell li julli yi bari bari wóor yi bari bari li jëf joxe lu mu bari bari bari bari su fekkee sellu suñu borom xol bi nag sell xol nañ fexe sellal xol yi jàppalante dimbalante kenn doon loo yéene sa bopp nga yéene sa morom ne boo ko yéene sa morom suñu borom daan la jox ñaaram jox sa moroom ñaaram boo ko yéene boo ko yéene ay suñu borom jël ay wa këpp la ko jël yu ba jox kan ko jox ka nga yéene woon aw ay moom am na yàlla doraay kenn am noonu déedéet kenn doraay yàlla digle di daw li mu tere suñu borom li mu bëgg ku ko def sax te li mu la war loolu ak jot bu déglu saxoo jë lim la war loolu da nga sonn lool te la jot doo ko jëriñ li waroon boo ko jotee boo ñu soxla ci lu ndigal doo ko jëriñ wala sax ci ndigal loolu moom baax moom baax parce que li ngay da koy jëriñoo loolu mooy barkeel loolu naan bari la barkeel la bu baax te sant bu baax te sant nga gudd fan wér gi yaram yàlla mosul la ci seytaane mosul la ci toog yëpp taxaw yi xale yi bu baax a baax buñ taxawe yàlla ba leen am ndox ndox mu man sama xel dal ñoom lool bis bii nag moom ba ñëwutoon fii am yitte ñi ñu taxawalee danañ fi teew ñun nii ñu fi teew danañ seet dara baax a baax salaamaaleykum sakku andan ak naag pasteef ñu ngi ñaan ci barkeb Sëñ tuwa suñu borom ko sa fan lool wéral la lool lepp lo yéne yéene ñu Sëñ tuba nga àggale ko mu melni ni ñi nga xamné ñom la dara jaareel bés bi ñom ñoo egsi non dafa melni dama ki wa waa Gassane ca kanam ñoo wa wa waa Gassane ca kanam akay ah, amna ci Wow. wow, intara jalan jàll bés nih, tamit Tanya si na mau egg mau doo mau mau noo jóg mau mooy dugg si moom lañ yemal mau ànd ak si Abdou si ak mbooloo ñoo egsi noonu di nuyu sëñ bi waaw bindukaay ñu dalal gan yi continuer waxtaan wi mën nañoo dalal gan yi ñu toog ñu tàmbali